Jangan mundur, jangan mundur. boy var. Anasını. waaw comme ni nga ko gisee noonu euh, cité yi ñoo ñëw ñoo ñëw léegi ñi nga xam ne mooy policiers yi commencé leen door après ci la ñu commencé sànni xeer taa ngi na rek leen calmé gars yi ñu ngi ne comme yéen policiers ñu ngi chargé ñu ngi chargé policiers policiers ngi chargé Thank you.

ngi noonu Keine Gruppe. combat mi ngi naan bàyyi leen Siteu bu ñëw. bàyyi leen Siteu bu ñëw. le chef le chef. le chef. eh Ndiaye. Ndiaye nañu bàyyi Siteu bu ñëw. chef y' a aucun problème nañu ko bàyyi mu dugg ak ñi mu àndal. ah non non non. bàyyi leen Siteu bu dugg. waaw dóor ak dóor dóor lacrymogène moom wax dëgg yàlla jarul nañ ko bàyyi ak ñu mën a àndal ñu dugg bañal moom dañuy jàpp ñu dóor taa ngi xeex ñu police ngi noonu sitaa ngi

Moussa Gora Ndoye mi ngi noonu ànd ak ki nga xam ne moo di Bira Sène ndeysaan

le président Macky Sall nga la ñor Yeah.